Avancel ayca ayca ayca arbitre ayca ayca arbitre premier demi-finale premier demi-finale poids léger Mansour Tine Diène Diouf Dero Langolé demi-finale poids léger Diène Diouf lan la jógee. deuxième demi-finale. Kamala Male. di leen jaajëfal bu baax dañuy topp ci Leewtoo TV. deuxième demi-finale. ñu ngi fii ci Fatick quart de finale. arbitre arbitre. diggante Ibou Ndiaye Obali ak Serigne Ndiaye numéro 2 quart de finale. arbitre bi sifflé na ñu ngay Leewtoo leen ñi topp en ci Leewtoo TV naan leen ñu ngi Fatick drapeau Ba ne Ndiaye Tyson moo woote Ibou Ndiaye Obali Serigne Ndiaye numéro 2 jël na ko Ibou Obali Serigne Ndiaye numéro 2 Ibou Ndiaye Obali Serigne Ndiaye numéro 2 Ndiaye Obali Serigne Ndiaye 2 jël ba waaye demul Ibou Ndiaye Obali Serigne Ndiaye 2 jël ba lu koy def arbitre arbitre war na ko ndombo Serigne Ndiaye 2 war na Ibou Ndiaye suul wala lu koy def Ibou Ndiaye Obali Serigne Ndiaye 2 ga def na kàr appui Serigne Ndiaye daan na Ibou Ndiaye Obali en quart de finale lourd ma nga noonu nag mais Ndeye Mbacké Diop Serigne Ndiaye dafa fair play ah Serigne Ndiaye dafa fair play waaye mel ni Ibou Ndiaye daa am lu ko bett ñi nga xamante ne ñu yàgg na woon da seen simple daa mel ne Serigne Ndiaye daa décidé de Serigne Ndiaye daa pare pour jël 5 millions yi yóbbu mais ani kër waa ana kër yi dama kër yi daal bokk ani kër yi oh j'aime bien kër des femmes wala kër des hommes kër de tout le monde kon sama gars yi dama leen di bëggee bu baax a leen jaajëfal moi j'aime waa Sarr Abdou bëgg naa de waaw waaw Sarr Sarr ani kër Abdoulaye Sow Sow bu la jéey maa ngi bëgg ci yow. waaw waaw j'ai bien les oh. noonu demi quart la woon. ndeysaan. Serigne Ndiaye 2 maanaam dem na demi finale. dañ leen di kàttal léegi. ci demi finale bi ak ah, daa jombi Mansour. xalaatee wu ko nii combat bi gaaw na yàggul. sa da koo bett. koo bett. Serigne Ndiaye da daa dox ci kaw maay nam Abdoulaye Sow pour la jéeri. waaw ñoo lay bëggee. maa ngi bëgg ci yow. mais léegi nag abonné abonné solo. di commentaire. di nga jaayante xale utalu leer. waaw kon ngeen abonné wu. Thierno Sarr. di may kër yi. man mañ projet bien les cœurs. Oh. Thierno Sarr Ibou Ndiaye Obali Serigne Ndiaye 2 ko daan léegi. quart de finale fii ci Fatick. Ah, waaw waaw. dinañ léegi incha allah. J'ai bien les cœurs.